mbokk auditeurs yi jërë ngeen jëf ci déglu bi ngeen ñiy faratal di déglu vendredi nag bu waxtu wi jotee ngeen di faratal di déglu seen émission bi di SOS santé tey nag SOS santé am mbégte ak bànneex di dalal ki nga xamante ne moom mooy docteur Salla Aïcha Dieng docteur Salla Aïcha Dieng nekk médecin internet des hôpitaux en pédopsychiatre euh, fii ci hôpital Fann particulièrement fu ñuy wax euh, kër xale yi docteur Soxna Aïcha Lalla Dieng ñu ngi lay wax dalal dalal ak jàmm ci rajo Rewmi FM mais laataa ñuy xuus waxtaan wi rek sant la gërëm la euh, ci sa disponibilité ginnaaw bi nga nango yu ci suñu invitation bile docteur soxna Sokhna Aïcha Dieng euh, euh, dalal ak jàmm si rajo Rewmi FM. salaamaaleykum Fatou ñu ngi lay nuyu. Euh, di kontaan bu baax a baax si invitation bi di la si remercier euh, si toujours mbégte ñu am occasion waxtaan si suñu liggéey waxtaan si euh, xale yi am jafe-jafe waxtaan si autisme mhm. ñu ngi lay jaajëfal sa invitation bi voilà di xaar question yi pour ñu xuus si waxtaan bi merci beaucoup pour sa présentation xanaa rek laata ñu ñëw ci li nga xamante ne moom mooy autisme bi nga xamante ne tàmbale nga ko ci sa ndoxteelu nuyoo wax rek ci sa spécialité et docteur interne nga des hôpitaux en pédopsychiatre euh, bu ñuy wax pédopsychiatre pour auditeurs yi ñuy déglu de manière assez terre à terre euh, euh, lan la ñu mun a jàpp docteur Aïch docteur Dieng. effectivement pédopsychiatrie mooy de manière terre à terre psychiatrie pour xale yi. psychiatrie mhm. adulte dafa am pour mag ñi am psychiatre pour xale yi pédopsychiatre mooy psychiatre pour xale yi. Mhm. waaw suñu domaine c'est pour les enfants xale yi nga xam ne dañoo am jafe-jafe euh, si wàllum psychiatrie ñu ñoom la ñuy jël en charge. Mm-hmm. Euh, xam naa ne euh, la pédopsychiatrie dafa nekk benn branche si lépp lu jëm médecine tey boo ñu doon wax rek ba niveau d'étude wala à quel moment mm-hmm. ngeen di spécialisé pour ñu nekk pédopsychiatre la. effectivement pour nekk pédopsychiatre moom il faut déjà nga duggul fac médecine ba ba def sa thèse ba pare maanaam huit après huit ba def sa thèse. Mm-hmm. a spécialisé wu. Euh, actuellement au Sénégal. Euh, pédopsychiatre euh, mi ngi nekk en cours d'ouverture mais pédopsychiatre yu fi nekk fi mu toll nii jàngewuñu Sénégal donc mm-hmm. Belgique lañ dem wala France. Mm-hmm. donc actuellement quand suñu prof professeur Fall ñu koy remercier au passage moom mi ngi xar tànku tubéyam pour pédopsychiatre am Sénégal pour xale yi gën a mën a spécialiser ci loolu. Mm-hmm. parce que dafa nekk domaine boo xam ni gars soxla nañ ko ñu koy laaj bu baax a baax la demande est très forte mais malheureusement amaguñu spécialiste yu bëri xam naa ne nag fii ak déwén incha allah war war na opérationnel au niveau pour su ko defee euh, képp ku bëgg spécialisé wu soo ba pare di nga mën a ñëw def pédopsychiatrie. Euh, kon su ma la hmm. amuñu ay produits yoo xamante euh, de nos universités publiques pour lépp waaw amaguñ ko. Hmm. amaguñ ko mi ngi en cours mais hmm. amaguñ ko. amaguñ ko waaw. d'accord xam rek tey docteur bu ñu nee pédopsychiatrie xam naa ne moom mooy jëm ci lépp lu jëm ci fecc yi ngeen di fecc euh, tout temps gi par rapport ak euh, anomalie yu ñuy def tey euh, par rapport ak sa fréquence consultation yan jàngoro yuy luy yuy dal xale yi ngay gën a am Euh, li ñuy gën a am mooy xale bu yéex a wax les retards de langage mm-hmm. euh, mooy euh, motif de consultation yu ñuy gën a recevoir mm-hmm. beneen bu ci mooy xale xale bu yëngutu trop ba mu ëpp maanaam hyperactivité yeneen itam mun nañu am xale yi nga xam dañoo am jafe-jafe concentration à l'école xale boo xam ni dafay crise parce que on a lu ñuy wax sur le plan cognitif loolu pédopsychiatre moo ko jël en charge mm-hmm. c'est vrai que am na pàcc boo xam ne neuropédiatre bi la mhm. mais am na pàcc boo xam ni c'est spécialement nu pédopsychiatrie mhm. Mhm. mais suñuy def daal de manière euh, globale lii gën a recevoir mooy xale yi nga xam ne ñoom retard de langage Euh, ci ban moment euh, la la la la fréquentation bi di di gën a la waajur yi di toog ne ñun suñu doom peut-être euh, war na wax warul wax wala foo ko fekk day tekk tekkaaral ban moment la waajur yi di vraiment donc am benn conscience pour ne suñu doom yi nañ ko yóbbu au niveau des structures sanitaires pour ñu mun ko déceler peut-être rab la wala feebar feebar tubaab comme on dit. Mhm. au fait lu ci ëpp baromètre parents yi mooy xale bi nay moroomam. su gisee moroomam yi ñu ngi wax moom waxul lu si ëpp loolu la loolu loolu moo leen njëkk a interpellé mhm. d'habitude pédopsychiatre ils viennent tardivement ñu ñu ñooy mujjee mhm. parce que li njëkk ñoom dañuy xalaat ni xale peut-être parce que des fois am na xale yoo xam da nga leen bi déggul mhm. donc dañuy njëkkee si ORL bi xale bi mi ngi dégg déjà léegi ORL lépp lu euh, examen yëpp wane ne xale bi déggul xale bi mi ngi dégg normalement du moins foofu lañ koy envoyé ñu xam ne lii euh, c'est carrément pédopsychiatre nekkatul loo xam ni somatique la maanaam am nekkul amul benn feebar si yaram bi maanaam du tëx du lenn moo empêché xale bi waxul di mhm. si des nag ñu ne pédopsychiatre ñu ñëw nag ñu ñu xuus def suñu diagnostic parce que retard de langage lu ko war a mën a indi bëri na mhm. léegi ñun su xale bi ñëwee en fonction de xale bi li muy présenté si signe yu muy présenté est-ce que yéex a wax bi dafa bokk ak torop mhm. est que yéex a wax bi dafa euh, euh, bo euh, dafa bokk xale bi xale bi dafay beru ñun en fonction de ça dañuy permettre na ñu mën a def suñu ay diagnostic Euh, euh, euh, justement diagnostic bi est-ce que des fois dinañ di ngeen ko mën a teel a déceler surtout que les enfants ci ñi ma ko sañ a waxal waajur yi à un moment assez tardif lañ leen di indi. waaw c'est vrai que des fois dinañu yéex a ñëw mais li may wax rek mieux vaut tard que jamais. Mm-hmm. yéex a ñëw teewul c'est vrai que xale bi nga xam ne moom moo gën a teel a ñëw moom la ñuy gën a mën a li ñu bëgg ci moom. si moom lay gën a yomb sa koo xam ne par exemple toog na ba am sept ans wala huit ans soo ko ñëw mm. mais teewul euh, suñu defee suivi xam ne dafa nekk long cours mm. euh, du gaaw melul ni comme pédiatrie nga dem xale bu soñ ñëw yóbbu nga ko faj nañ ko sur le faux su la neexee sax doo delluwaat rendez-vous mm. fii nag rendez-vous des fois des fois dafay xaw a takku xale bi dañ koy topp euh, si diir bu yàgg boobu nag gis nañu ni que xale yi wax dëgg yàlla su ñu leen di topp dinañ am amélioration. Mhm. Euh, bu baax moo tax voilà munul mun na bañ a mel nag comme moroomam mi ni ñu mel. mais quand même mun na am amélioration bu baax bu ko permettre mu mun a jàngi mu mun a insérer aussi société bi entre autres. Mhm. Euh, wax nga ko ci sa biir wax euh, traitement bi dafa nekk benn traitement boo xamante ne dafa nekk un traitement à à long terme xam naa peut-être sur une année deux ans par rapport ak peut-être tout temps bi lan mooy feebaram tey bu ngeen demee ba yor benn xale di ko traité un an euh, un an six mois ainsi de suite le fait que parents yi xam naa du ñàkk ay parents yoo xamante ne dañuy daal di désister bu fekkente ni désisté désister euh, est-ce que traitement boobu loolu du am lu muy gàllankoor ci peut-être màggu xale bi wala mu yokk feebar bi nga xamante ne tout tànk bi mu ngi koy traîner. waaw loolu moom bien sûr bien sûr feebar bu nekk moom soo ko toppal li ma war rek. Mm-hmm. day ay gàllankoor. Mm-hmm. complication affaire bi gën a compliqué soit euh, euh, du am évolution loolu moom c'est sûr moo tax comme moo tax ñun euh, dañuy fi consultation yi day yàgg en moyenne consultation quarante cinq fois une heure de temps la. Mm-hmm. Euh, consultation day yàgg moo tax des fois parents yi dinañ ñëw pour rendez-vous sax mais rendez-vous yi day sori. Mm-hmm. parce que duñ jël malade bu bëri par bis. Mm-hmm. bi nga jël bi nga war a jël pour wax ak parent bi pour liggéey ak xale bi doo donc dañuy jël malade yem pour mën a jël suñu temps wax ak parents yi expliquer leen premier rendez-vous dañ leen expliquer loolu yëpp lu ci wax leen ni que fii da faj bi moom du lu gaaw mhm. nii la mais ñun am nañu euh, mbébét def si xale bi lii ak lii ak lii ak te euh, te lu ëpp nag suñu expliquer parents yi dañuy adhérer dañuy mhm. dañuy continuer suivre parce que dañuy gis au fur du temps dañ siy gis njëriñ euh, dina am leen lu ma laaj comment se passe l'approche approche bi avec les parents je m'explique parce que d'habitude ñun euh, wax nga ko on n'a pas assez de pédopsychiatre déjà un loolu mun na nekk un barrière mais de prime abord fii bu ñu waxee lépp lu jëm ci wàllum psychiatrie rek euh, dañu naan kii xelam dafa am dafa dafa am retard par rapport ak sa santé mentale donc du coup tey bu ñu doon wax euh, approche bi ngeen di am avec les parents la société sénégalaise de manière générale est-ce que approche bi c'est facile bu ñu nee automatiquement yii kii de xel bi neexul kii de lii ak li ak li comment est-ce que vous vous arrivez vraiment à conscientiser les parents ngir ñu mën a xam ne seen doom mm, dafa feebar mais ce qui n'a rien à voir avec feebaru xel. Mhm. effectivement loolu des fois dañ si am jafe-jafe bu wér parce que quand même képp ku sañoon soo juree sa doom du am benn gàllankoor. Mm-hmm. donc du yomb euh, nga wax euh, waajur bi ni que ah fi mu toll nii sa doom am na par exemple autisme wala am na lii am na laa. Mm-hmm. Euh, loolu day de day nekk des fois loo xam dafay diis loo si parents yi. Mm-hmm. acceptation boobu dañ koy travailler au fur et affaire yi moom moo tax. travail bi moo tax euh, suivi bi di yàgg. Mm-hmm. parce que mun nga ñëw tey benn consultation accepté woo du ñu forcer dañuy bàyyi euh, nànk-nànk di la expliquer lan mooy feebar bi parce que soo comprendre rek di nga nangu. Mm-hmm. mais loo comprendre pour nangu ko pour nangu ko du yomb. Mm-hmm. dinañ jël temps expliquer parents yi euh, détail par détail lan mooy feebar bi lan lay présenter si xale bi suivi bi lan la mun a yokk si xale bi. des fois moom comme Afrique lañu nekk dañoo am suñu ay réalité voilà des fois des fois moom du facile du tout des fois parents yi dañuy ñëw sax ak benn nag benn représentation déjà faite mhm. pour nga dindi ko seen bopp merci pour nga dindi ko seen bopp yow du facile mais teewul euh, dañuy naxtaan ak ñoom expliquer leen surtout loolu expliquer communication boobu noonu mhm. parce que moo tax suñ consultation yi di jël temps mhm. dañuy jël suñu temps communiquer ak ñoom expliquer leen feebar bi détail par détail xale bi lu mu am pour mun a comprendre des première consultation yi nag mun nañu bañ parce que fi diagnostic bi ça prend du temps pour état pour def ko en place. Mm-hmm. surtout pour par exemple autisme y a des y a des tests à faire et cetera et cetera. Mm-hmm. donc diagnostic bi dafay xaw a jël temps. Mm-hmm. Euh, mais savoir que man li ñaax parents ñu xam ne y a pas de maladie honteuse. du du fee du doloo xam ni dañoo war a nëbb xale bi dañ ko war a dañoo war ruus dañoo war a am gàcce et man je trouve que. parents yi nga xam ne ñoo am seen doom yu am jafe-jafe dañoo macha allah sont des parents très forts. Mhm. man dama leen naw parce que euh, kàttan gi ñu am doole gi ñu am nekk si xale yooyu noonu je dis que suñ ko tegoon keneen mënu ko. Mhm. donc kàttan googu ñëw bu ñu ko xeeb. Mhm. donc suñu leen expliquer rek le plus souvent dañuy adhérer. ànd ak ñun des fois nag début bi mën na bañ a facile. mais au fur et à mesure euh, euh, justement wax nga parents yooyu ce sont des parents forts ak société bi ñu nekk mentalité boo xam bo mentalité boo xamante ne il faut nga fort parce que y a regard euh, de la société dañ lay indexé des fois ils t'accusent de yoo xamante ne sax ñoom duñ ko maîtriser euh, tey comme docteur nga certainement war nga mën a def euh, yenn région yi ndax approche bi yomb na moo xam en dehors de Dakar je suppose que peut-être jot nga def ay gox-goxaan ci sa formation muy stage mais sa formation en tant que médecin à l'intérieur du pays est-ce que approche bi c'est aussi facile que ça ça non non c'est pas aussi facile moom mm. loolu moom <laughs> dañ koy wax c'est pas aussi facile mm. bokkul ak euh, waa Dakar nga xam ne euh, bëri na peut-être na intellectuel mm. am na ñoo xam ni day gis seen doom dara dugg YouTube wala dugg Google tàppee xool xaw na si am avance tuuti am ñoo xam suñuy ñëw sax dañ naan la dama indi sama doom parce que dama yaakaan dafa am dafa am autisme lii donc kooku gëstu na avancé na avancé na si loolu bokkul ak vraiment gox-goxaan nga xam ne vraiment des fois am nay idée arrêté yoo xam ni euh, c'est euh, difficile euh, dindi ko seen xel. Mm-hmm. mais teewul comme ni ma wax rek ñun moom suñu liggéey moom contact bi da see am solo. Mm-hmm. naxtaan expliquer communiquer. Mm-hmm. on prend le temps de communiquer ak ñoom. expliquer leen te d'habitude loo expliquer lu clair euh, teg ko fu leer nit ki. de compte dafay adhéré dafay comprendre li ngay wax mais approche bi moom bokkul moom dëgg yàlla. approche bokkul. mën nga ñu wax peut benn genre anecdote boo xamante ne Euh, parents yi dañoo xawoon trop difficile am na par exemple mos naa ba may def sama stage rural boobu du defaguma pédopsychiatrie. Mhm. Euh, may def sama sama stage rural en tant que pour def médecine générale bi. Mhm. Euh, ma nekk si benn gox si benn gox si biir Sénégal. Mhm. xale bi dafa amoon anémie. anémie sévère très sévère am na boobu anémie à je pense mi ngi nekkoon à quatre grammes anémie très sévère la xale bi amoon donc anémie bi nu mu sévère xale bi day tax ni que day am une euh, palpitation palpitation yooyu muy am parent yi ñoo ne ma kii xam nañ lu ko dal mhm. fit bi ni muy tëf tëfee nii faj bi du fajum fii donc lii faju faju olof la mhm. ma ñëw expliquer parents ne ko non papa kii de dañ euh, manqué da deret la def il faut ñu ñu perfuser ko il faut ñu transfuser ko du moins papa ji bañ ne mu mukk da koy génne da koy yóbbu si sëriñ donc euh, il a fallu ma xaw ko xuuxal ne ko da ngay signer décharge tout ça mu ne ma amul benn problème damay signer décharge xale bi dam koy génne. Euh, il a fallu ñu dem ma bàyyi mu bàyyi mu jàll ne ko waa baax na d'accord kon maa ngi ñëw après nga si xaw a retard xaw a retardé tuuti signature décharge bi ñëwaat jëlaat sama temps expliquer ko euh, jël feuille bind wan ko. indi ay indi ay image expliquer ko pour mu soog mun a comprendre li ma doon wax mu soog a mën a accepter bàyyi fa xale bi pour ñu transfuser ko. man xale bi xamoon xale bi su demoon moom ñàkk nañ ko parce que anémie 4 grammes dafa soxlawul sang d'urgence donc loolu noonu jafe-jafe jooyu gox boobu moom dama amoon jafe-jafe boobu bu baax a baax a baax a baax mm. des fois ngay ñëw ñu ne la dañuy génne seen malade mm-hmm. signe de charge ñu ne la amul problème mm-hmm. bon des fois gis malade yoo xam ne waruñu génn dañoo war a toog mais su parents yi décidé doo ci mën dara yow li nga mën rek mooy jox leen la bonne information. Mm-hmm. waaw moo tax il faut prendre damay ñaax sama moroom médecin ñu prendre le temps de communiquer c'est important de communiquer. Mm-hmm. Euh, des fois ku nekk ak nag euh, nag ni dikkee ak ni ñëwee mm-hmm. mais ñu yow dal déglu leen. Euh, jël jël temps communiquer ak parents yi. Mm-hmm. communiquer nag accompagnant yi c'est mm-hmm. important. Euh, justement la communication mm-hmm. ak euh, accompagnant accompagnant yi. bu fekkente ne jaarul ci anam mu war na expliquer le fait que beaucoup di am ay di di di réticent par rapport ak traitement yi nga xamante ne moom moo habilité pour faj xale bi. bien sûr bien sûr parce que des fois man je nit ki su comprendre lan moo tax muy def lii rek. day gën a yomb adhéré mm-hmm. mais so par exemple soo jox nit garab ne ko naanal garab bi matin du soir te xamul garab gi muy naan ban lu muy def si yaramam mm-hmm. euh, feebar bi mu am garab gi ban ban ban ban ban ban solution la koy indil donc pour mu arrêter ko di ko naan tous les jours du yomb. Mhm. mais soo jëlee sa temps ne ko garab bi kat lii lay def si feebar bi lii lay wàññi si feebar bi nit ki dina gën a adhéré dana xam ne ah garab bi su ko naanul feebar bi lii mun na yokku wala lii wala wala lii nii mën na mën na gën a pire. Mhm. donc comprendre le temps vraiment de communiquer. Mhm. cicatrice bi moom ñun moom suñu lépp euh, la base de communication. lépp wax la donc soo jëlul temps communiquer daanaka moom doo faj. donc ñun moom vraiment. on prend le temps de communiquer avec les avec les parents parce que euh, ak pédopsychiatrie parents yi ñoom ñoom ngay gën a waxal psychiatrie mm-hmm. adulte aussi tu prends le temps de communiquer avec avec le patient mm-hmm. non on euh, la place de la communication est plus qu'importante pour nous euh, wax nga psychiatrie adulte ak psychiatrie enfant dafa bokkul Euh, noo bokkul mm. lépp psychiatrie la mm. mais psychiatrie adulte par exemple mag ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafe si psychiatrie ñoom fa lañ leen di fajee mm. fii par exemple fi nga nekk nii kër xale yi ñun xale yi rek dañ fiy jël psychiatrie euh, adulte mi ngi en face de nous waaw bokkul c'est euh, xale bu bu feebar ñu mën ko jël en charge wala mën ko Et comment est-ce en pédopsychiatrie, le plus souvent, il n'y a pas d'urgence, comme on dit. D'accord. Le plus souvent, il n'y a pas d'urgence. Euh, rarement il y urgence, très rarement. Donc ici, nous, euh, on travaille sur la base des rendez-vous. maanaam rendez-vous euh, yaa waajur bi nga xam ne gis na ni que doomam am na dara loo xam ne pédopsychiatre moo ko a jël en charge day ñëw ci secrétariat jël rendez-vous. su jëlee rendez-vous médecin bi gis ko message bi su ko gisee dina xam en fonction euh, commencé teg lu ñu naan nay hypothèse diagnostique mm-hmm. en fonction de hypothèse diagnostique yi dina xam ne kan moo war a gisaat xale bi entre autres parce que pédopsychiatrie euh, pédopsychiatrie bi mënul travailler seul y a les paramédicaux qui sont qui sont autour mm-hmm. muy orthophoniste yi ñi nga xam ne ñoo jàppale xale yi si wax bi mm-hmm. muy psychomote bi euh, psychomotricien bi muy psychologue bi donc y a plusieurs y a une équipe mm-hmm. une équipe autour de l'enfant des éducateurs spécialisés entre autres donc en fonction de soo gisee xale bi yow médecin bi yaa koy yaa koy njëkk a gis en fonction soo ko gisee ba pare nga xam xale bi euh, war na def science orthophonie war na def psychomotricien war na gis éducateur spécialisé entre autres su ko defee yow nga ko ni foofu leer na mbokku auditeurs yi ma fàttali ne yéen a ngi déglu seen émission bii di SOS santé te nag SOS santé am mbégte ak bànneex di dalal ki nga xamante ne moom mooy docteur Salla Aïcha Dieng docteur Salla Aïcha Dieng nekk euh, interne des hôpitaux en pédopsychiatre euh, ci hôpital bu Fann particulièrement ci kër xale yi fii xam naa ne en dehors en plus de li ngeen di def euh, di fecc xale yeeg yooyu mu mel ni gis noo fi ay ay ay pour certains xamante moom xale yi mun a allier eh, traitement bi ak fo comment est-ce que vous arrivez à à, à gérer tout ça là. Hmm. fait euh, c'est important de savoir que xale léppam mi ngi koy jàng à travers le jeu. xale léppam à travers le jeu la koy jàng. Euh, donc c'est important euh, xale euh, muy fo mais nag ban fo. Mm-hmm. Ah, il y a des jeux interactifs il y des jeux yoo xam ni son des jeux stimulants entre autres entre autres mm-hmm. donc balançoire yi nga gis ak fii on a ici ce qu'on appelle l'hôpital du jour l'hôpital du jour euh, euh, hôpital boo xam ne ni hospitalisation boo xam ne ni que xale yi dañ fi nekk euh, de huit heures à treize heures Euh, ñu wàcc ñibbi seen kër donc huit heures treize dañuy jël xale yi nga xam ne ñaar euh, a des autistes yu ñu jël euh, le plus souvent sont des autistes mm. ay xale yoo xam ne ñu am na ay carence affective yu nduroog nay autisme entre autres mm. ñoom la ñuy jël travail ak ñoom toute la semaine léegi su xale yi ñëwee nag yaa am xale bu nekk day am programme am ce qu'on appelle mm-hmm. bu nekk day am programme personnalisé on travaille avec l'enfant si programme bi nag programme de la journée day temps xam ne bàyyi ñu dem si balançoire yi ñu mm-hmm. balancer wu euh, parce que c'est important mm-hmm. euh, euh, xale doo ko demande strictement par exemple jàng nga ko jàng jàng rek non non non il faut tout le temps ay moment de ay moment de divertissement ay moment d'épanouissement de jeu mm-hmm. et c'est plus qu'important loolu moo tax éveiller esprit bi tout comme ni ma wax rek l'enfant apprend par le jeu. Mm-hmm. l'enfant apprend par le jeu lépp luy xale di jàng daanaka c'est à travers le jeu créativité léppam c'est à travers le jeu. Mm-hmm. voilà il faut savoir bien guider jeu bi. pour mu mun a éveiller. Euh, wax ci li nga xamante ne nag ci deuxième partie émission bi wax euh, jàngoro bi di autisme euh, autisme dañ koy dégg mais ñu bari mu mel ni xamuñu ko dafa nekk jàngoro. boo xamante ne en tout cas sénégalais yu bëri tey boo génnoon di leen laaj lan mooy autisme dinañ la wax ay rab moo ko jàpp dafa am lu ko feeñu et autre euh, nga nekk pédopsychiatre xam naa ne sa xam-xam wàñ na ci wàllu autisme bi ndax depuis tout le temps sa exemple ci cadre boobu nga koy daal di joxe docteur euh, Salla Aïcha Dieng tey bu ñu bëggoon xam lekk mbokk auditeurs yi jàngoro bi di autisme euh, autisme mooy lan mm-hmm. Euh, autisme dafa nekk benn feebar boo xam ni dañ naan si tubaab c'est un trouble neurodéveloppemental xale bi daf koy jutuwaale euh, mais autisme ni ñu koy ràññeewee mooy ni que xale yi ñoom ñëpp dañoo am lenn mais dañoo am jafe-jafe pour interagir ak nit ñi difficulté lu ñuy wax difficulté d'interaction sociale dañoo am jafe pour duggante ak nit ñi donc xale bi nag jafe-jafe boo muy duggante ak nit ñi euh, day tax ni que xale bi day tàmm di beru Euh, xale bi euh, am na ñoo xam ne duñu ñu wax euh, foo leen fekk dañ naan des fois dañuy nekk seen seen bulle foo leen fekk ñu ngi ñoom ñoom kese duñu fa ak ñeneen ñi soo leen di woo des fois duñu wuyu loolu yëpp jafe-jafe ak interaction sociale boobu moo ko waral. Mm-hmm. am na nag yeneen yeneen signes yoo xam ne mun na si mun na si tegu et et aussi il y a plusieurs phases. Mm-hmm. am na ñoo xam ne du genre dañoo am autisme léger. am ñoo xam ne ñoo am autisme moyen am ñoo am autisme sévère mm-hmm. donc tout dépend de xale bi fan la toll fan la degré autisme am toll mm-hmm. et des fois am tamit mun nañu am ay signes accompagnateur mm-hmm. maanaam xale bi mun na am autisme amaale lu ñuy wax euh, QI élevé maanaam xel bi neex lool am na autisme xel neex lool des fois nit ñi sax dañuy foogoon ni képp ku nekk autiste surdoué nga sa xel day neex torop euh, am na chimie du ñëpp Euh, am na si autistes yoo xam ne dañoo am seen xel dafa normal comme ñeneen ñi am ñoo xam au contraire dañoo boolewaale si na retard na retard mental. Mhm. donc tout dépend xale bi ban ban type d'autisme la am. Mhm. ak euh, nag nu muy présenté waaye ñun ñëpp ñoo bokk leen mooy dañoo am jafe-jafe pour interagir ak nit ñi pour jëflante ak nit ñi. d'accord euh, laata ñuy xuus si waxtaan bi rek taxaw ci ñett yi nga xam ne lim nga ko mhm. bu ñu waxee autisme léger lan lay undu concrètement. au fait euh, nit ki dina am suñu ne autisme léger nit ki dina am euh, autisme mais signe yi du du du euh, du jéggi dayo comme quoi autisme moyen mhm. des fois am na mag ñoo xam ne sax dañuy am autisme léger mhm. et il passe ça passe na inaperçu mhm. ba ñu nekk mag ki kenn mësu ko diagnostiqué ñoo xam ne ay mag ay mag yoo xam ne autiste lañ parce que signe yi du du yow du jéggi dayo da ngay gis xale bi dafay dafa isolé wu ni koo xam ni du bëgg duggante nit ñi torop mais mm-hmm. dina wax du am yenn jafe-jafe yu extraordinaire mm-hmm. donc foofu lañ koy xay xayma waaye am na ay ay test nag yu ñuy permettre euh, ñu ñu wax kii léger la am kii moyen la kii sévère nekkul juste si gis xale bi wala si wax bi mm-hmm. daa am ay test bien définis yu permettre ñu diagnostiquer autisme bi ak ñu xam du ban degré autisme la am d'accord euh, bu ñu waxee autisme moyen certainement am na différence autisme ak bi ngeen dëkk ji muy autisme léger bi effectivement juste euh, si intensité signes yi lay doon rek. d'accord intensité signes yi sévère bi euh, xale bi signes yi mooy gën a bëri. Mhm. moyen bi signes yi dafay yemamaay. Mhm. foofu foofu rek lay doon. mais par exemple mun naa gën a xuusu si signes yi à part euh, difficulté interaction sociale bi. xale bi day am trouble trouble si langage bi soit mun na am retard de langage maanaam. xale bi du du wax su ko waree wala mën na am lu ñu naan régression langagière maanaa xale bi développement normal na normal na ba deux ans mi ngi doon wax papa et maman jékki-jékki rek waxatul mm-hmm. am na ay signes sax yu gën a précoce yooyu yoo xam ni euh, à partir de six mois moo tax ñuy wax yaay yi ñu sedd seen doom am na xale yoo xam ne soo leen di nàmpal sax duñ la xool loolu sont des signes précoces mm-hmm. d'autisme la signe mm-hmm. am na ay signes très précoce d'autisme yoo xam ne si nampal wala dès le début euh, nga gis waajur bu ñëw ne la man de sama doom Euh, yàgg naa kaa wax ñi naan kii nii bokkul ak ñeneen mm-hmm. parce que su ma ko doon nàmpal man daal daan moo ko nu jëkk comme ni ma doon yëgee yeneen xale yi. xale boo xam ne da nga koy teg la journée si berceau ba du jooy. du wax xon du wax dara su xiifee sax du jooy. Mm-hmm. Euh, du du du attirer attention nit ñi ci moom. Mm-hmm. lool noonu war na tey xel. Mm-hmm. donc yooyu sont des signes précoces te xale bi lu mu gën a mën a teel a ñëw consulter gën a mën a euh, gën a mën am am na am amélioration. à part difficulté interaction yooyu xale yi dañuy gis ni que euh, des fois dañuy am lu ñu naan. Euh, na stéréotypé maanaam dara dañ koy def di ko def di ko def rek mun nañ jékki-jékki di tourner si ñoom comme benn tour bi di tourner rek di tourner si ñoom rek toute la journée dañuy tourner dañuy tourner si ñoom mm-hmm. mën nañ jékki-jékki xale bi di yuux rek di crier di di yuuxu loolu la ñuy wax euh, na stéréotype wala ñuy wala ñuy dóor seen bopp mën nañu am na euh, agressivité mm-hmm. auto auto agressivité mm-hmm. hétéro agressivité yi du dóor nit ñi mën nañu hyper agité yëngatu loolu ba leen téye mm-hmm. fu ñu nekk ñëpp xam nañ ñëw nañ euh, dañuy yëg si table yi dañuy yëg si kaw meuble yi dañuy jaxase dañuy sànni entre autres loolu nag en fonction de sévérité bi mais yooyu sont des signes yoo xam ne dafa war a arrêter parents yi indi ko ñu constaté nu mu gën euh, dañuy des ci ci première signe bi nga wax pour euh, euh, xale boo xamante ne buy nàmp du xool du xool yaayam mais am na leneen loo loo xamante ne wax nga ko koo xamante ne buñ ko xasee ba jox mu lekk du yuuxu du def dara on a tendance à dire que man de sama doom bi dafa yaru du jooy sama doom bi dafa yaru du jooy ba de telle sorte que pour nga déceler ne que sa doom bi dafa am benn anomalie bu nekk ci moom des aussi c'est pas aussi fréquent à moins que nga nekk koo xamante ne am na saytu trop wala am na notion ci lépp lu jëm ci wàllu wérgu yaram foofu aussi comment est-ce que le bi di a xaw a defee la différence parce que fii dañu tàmm kii de doom bi dafa yaru doom bi di jooy doom bi lii donc pour euh, les sénégalais ñu amul seetlu peut-être euh, du ñu gaaw a xam ne kii peut-être euh, dafa am lii di autisme te buñ ko suivre lee bu baax mun na dégénérer. Mm-hmm. effectivement moo tax ñuy wax waajur yu ñu seetlu. Mm-hmm. c'est vrai que des su nekkee doom bi nekkee sa taaw am na yenn repères yoo xam doo ko am te léegi jamono ji ni ñuy dëkkee tamit appartement la ñuy dëkkee euh, yaay nekku sawet maam nekku sawet wet bàjjan nekkul sawet wet donc yow kese ak xale bi mun nga bañ a seetlu yenn yi mm-hmm. euh, ñu koy gën a seetlu mooy ñi nga xam ne am nañu expérience soit amoon nañu yeneen doom ñu gis différence entre entre entre xale yi soit euh, nga nekk si famille boo xam ni si euh, grande famille yaay ji seetlu wala maam yi seetlu kii de moom du yëngatu du def dara parce que même bu fekkee xale bi noppi na euh, su xiifee war na jooy parce que moom mooy période boobu moom mooy moment moom mooy moyen de communication mm-hmm. su xiifee war na jooy Euh, d'habitude su couche bi euh, tooyee war na jooy entre autres mm-hmm. mais koo xam ne mën nga ko bàyyi toute la journée xiif na xam nga ni kii xiif na mais jooyul xam nga ni kii couche bi yàq na ko mais jooyul mm-hmm. yooyu noonu ça doit alerter mm-hmm. parce que euh, sont des choses yoo xam c'est pas normal c'est vrai que des fois nga am xale yu calme mais xale bi même su calmé mën na bañ a parce que fi may waxee mooy ni xale bi du attirer attention ñi ñi ci moom. Mhm. des fois xale bi suy màgg ay six mois ay euh, ay quatre mois da ngay romb muy jéem muy jënd pour nga fab ko. su su déggee kenn romb na euh, dina jéem a jooyantu pour kooku jël ko su mm-hmm. kenn di génn mu bëgg a ànd moom pour dem mais ku deful yooyu noonu yëpp sa veut dire que tu n'attires pas l'attention des gens envers toi mm-hmm. loolu noonu dafa war a tax nit ñi bàyyi si xel voilà euh, docteur ñu bëgg a xam rek euh, ci ban moment le peut-être xaritu tonk bi di di di agressif par exemple autisme bi ngay wax autisme sévère kon bu fekkente ne dafa am autisme sévère moom moo tax muy muy brutal wala qu'est-ce qui se cache derrière nag na tax xale bi mel noonu mais ça veut pas dire que sévère kese moom mooy am euh, agressivité boobu euh, moyen mun na ko am léger sax mun na ko am mais mm-hmm. moo tax ma ne la c'est pas à travers les signes moom la ñuy diagnostiquer sévérité war a degré autisme bi c'est en fonction des tests qu'on va faire mhm. euh, mais le plus souvent xale yi nga xam ne dañoo euh, dañoo agressif dañuy am soit autisme moyen wala wala wala sévère mhm. c'est rare léger mu am loolu mais non l'exclut pas mhm. euh, mais yooyu ay signes la yoo xam ni xale bi agressivité bi mën na nekk euh, ci moom loolu la ñuy wax auto agressivité mën na nekk envers les autres loolu la ñuy wax hétéro agressivité Mhm. autisme euh, ba xam euh, euh, feebar bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy par exemple nga jël ko ci sa arrière grand parent sa mhm. maam mhm. wala sa frère wala sa bëggoon xam rek ndax autisme maladie génétique la Euh, waaw ça fait partie des facteurs de risque maanaam mën na doon ay loo xam ne mun na ko indi parce que ba fi ñu toll nii fi ñuy wax nii cause autisme kenn xamu ko mënuñu wax de manière formelle lii mooy indi autisme mm-hmm. mënul nekk mm-hmm. donc ce qu'on a mooy ay li ñuy wax ay facteurs de risque maanaam euh, ci ay études yoo xam ne surtout euh, kii ñoo ko def nasaraani gis nañu ni que am na yoo xam ne mën na ko indi mais suñu nee facteur de risque mën na ko indi mun na ko bañ indi mais pour pourcentage bi xaw na bëri loolu loolu mooy facteur de risque mm-hmm. euh, autisme gis nañu ni que am na ay famille yoo xam ni euh, mun na nekk génétique mun na nekk donnante ah loolu ça fait partie des facteurs de risque xale boo xam ni euh, yaayam dafa nekk autiste wala maamam nekk autiste moo ëpp chance nekk autiste que koo xam ni famille boobu kenn kenn nekk si autiste mm-hmm. waaw loolu mën na nekk mm-hmm. mais comme ni ma wax rek on dit si autisme mënuñu wax de manière formelle lii mooy cause autisme mm-hmm. fi ñu toll nii Euh, loolu mu mel ni mbokk auditeurs yi ñoo ko déggandoo am loo xamante ne moom mooy e jàngoro bi di autisme docteur dañuy des rek euh, ci wàllu woowu ba léegi autisme bi am na xale yoo xamante ne dañuy autiste mais de prime abord muy mag bi muy rakk bi duñ ko xam parce que dañuy nekk ay xale yoo xamante ne euh, dañuy bien portant ci man ñi ma jot a gis maanaam bokkul ak yeneen feebar yoo xamante ne boo gisee xale bi tokk rek di nga xamante ne kii mënoo ko wax mais tu sais que am na benn handicap mais xale yu autisé d'habitude dañuy nekk ay xale yoo xamante ne dañuy bien portant seen kanam duñu am ay handicap moteur ak yooyu noonu ndax loolu aussi du xaw a yéexal ñu gis euh, ñu ñu ñu ñu ñu ñu xam diagnostic bi waaw loolu gën a tax au fait que nit ñi xamuñu xamuñu autisme parce que autiste euh, un enfant autiste du feeñ sa xar kanam. Mm-hmm. bokk la koo xam ne trisomie la. nga xam ne soo ko gisee di nga xam ne kii c'est un enfant trisomique. Mm-hmm. parce que xar kanam gi gis nga ay euh, malformation yu wane ne xale bi am na dara mm-hmm. un enfant autiste y a ah, dara luy wane luy wane ci kanam gi xale bi am na c'est sur le plan comportement. moom y' a rien sur le plan physique mais sur le plan comportement foofu la problème bi di ne. parce que foo xam ne par exemple xale bi ñëw na par exemple dugg si biir nit ñi nuyoo xale xale autiste du ko def moom moom moom le plus souvent su ñëwee du jëflante sax ak nit ñi dafay réserver. day toog benn place am benn ruqam ko fa fekk mu changé place dem feneen du jëflante ak nit ñi. Mm. le plus souvent. Mm. donc sur le plan comportemental foofu lay am souci mais pas sur le plan physique du tout mm-hmm. donc certes loolu war na mën na tax retard retard de prise en charge bi am mm-hmm. parce que comme ni nga wax des fois Euh, ak euh, société bi nu muy peser xale bi day yëngatu des fois ba mu ëpp ñu naan kii doom ji dafa réew téewul doomam xool xale bi ki dafa yebaate moo tey li muy def entre autres alors que no loin de la donc loolu tamit des fois day peser si parents yi ba parents yi du nangu que seen doom am na souci pour mun ko yóbbu hôpital parce que tellement merci day nekk benn tellement regard de société bi nu mu mettee si xale yooyu noonu mm-hmm. sont des xale euh, son des enfants le plus souvent qui sont incompris mm-hmm. duñ leen comprendre seen comportement parce que sa euh, sort de l'ordinaire mm-hmm. di bokk la gën xale yi ni ñuy jëflante mais comme li may tàmm di wax parents yi rek euh, loo leen gis loo xam ne jaaxal na la seen doom le plus souvent comme ni ma baromètre yi seen morom lañ certes xale bu nekk nu muy évoluer mais am na yoo xam ne ça doit attirer l'attention pour parents yi mën a yóbbu seen doom gis spécialiste le plus rapidement possible. Ah, avant ñuy wax waxu spécialiste yi sax mu mel ni way wayjur yi nga xamante ne seen doom yi dañu am jàngoro autisme yaa ngi koy wax xale bi dañ koy stigmatiser mais même au niveau de l'environnement euh, surtout euh, si côté ñu ñu ñu ñu jigéen yi nga xamante ne jigéen yi nga xamante ne ñoom ñooy wasin le plus souvent aussi dañ leen di farataal di indexé e, ngay fekk lépp lu jëm ci wàllum autisme ndax am nga benn jour benn wayjur peut-être ñëw confier wu ne sama doom yéex ko ñëw parce que lii ak lii la am na ñoo xamante ne sax seen ménage dafay faral daal di tas famille bi daal di disloqué parce que on te xale bi jinne moo ko dugg wala lii wala lii wala laa. bien sûr bien sûr loolu dañ ci am très parce que comme ni ñëw dañoo nekk société boo société boo xam ni euh, jigéen lu ñu index indexé dafa bëri mm-hmm. euh, lépp lu baax ñu ne jigéen la lépp lu bon tamit ñu ne jigéen la des fois xale bi su ma leen nee na dañ la ah, yaay ji bi ñu ko taxawaalu yaay ji moo defoon li yaay ji moo defoon la alors que c'est loin de là bokkul du tout euh, maintenant da gis par exemple man gis naa ay ay parents yoo xam ñëw nañu ba commencé consultation première fois ma gis leen toogaat lu yàgg gisaatuma leen mm-hmm. ñu dem euh, ñu wax ma ne ma ni biñ demee kër ga wax ni par exemple wax goro bi que damay ñëwoon hôpital yóbbu xale bi kooku def na ko da nga yàq sa xaalis lii fajum hôpital Euh, li faju euh, li di faju nit ku ñuul la di faju hôpital donc loolu tamit indi frein des fois parents yi bëgg mais entourage bi ñoom du appuyer mhm. loolu nag de ce fait que parce que euh, pour jël en charge xale yi dafa soxla persévérance bu extraordinaire mhm. soxla patience soxla force mentale pour mën a pour mën a vraiment dékku dékku yenn yi mhm. des fois suñu soutenirul rek vite fait da ngay lâcher les bras da ngay bàyyi ñun nag loolu nag suñu liggéey la suñu ñu ñaax parents yi may leen force boobu noonu ñu mën a jàppale seen ay doom pour prise en charge bi gën a yomb. Mm-hmm. Euh, prise en charge bi sax justement euh, mm-hmm. euh, waaw déjà prise en charge su ñu ñëwee comme ni ma la wax dañuy jéem a posé diagnostic bi si comme si signes yi ma la limal sànq. Mm-hmm. xale bu am jafe-jafe interagir ak nit ñi xale boo xam ni dafa a wax wala waxul xale boo xam ne da wax jékki-jékki dem ba ay deux ans waxatul xale boo xam ne foo ko fekk dafay beru xale boo xam ni dafay am euh, lu ñuy wax na stéréotype soit verbal wala gestuel maanaam di yoo xam ne da koy répété di ko répété waat di tourner ci moom euh, xale boo xam ni soo neko ko par exemple fowal oto bi au lieu mu jël ko di ko di di ko rouler moom li koy intéressé mooy roue yu tourner mais pas oto bi en tant que tel mhm. mën na jël euh, fookaayam du ko laal ay day dem si waañ ba jël ay pot ay ay kuddu ci noir rek yooyu mun na ko traîner avec ça toute la journée. Mm-hmm. day day changer sens su sens su jouer yi. Mm-hmm. Euh, donc loolu noonu signes yooyu yëpp su ko gisee parents dafa war a arrêté wu ñëw envers nous. Mm-hmm. et su ñu si si ñun nag dinañ ko poser question qui nous qui permettre ñu gën a étayer suñu diagnostic. bis bu ñu étayer diagnostic bi ñu def ay tests yu wane ni que xale bi il est vraiment autiste. suñu amee tests yooyu nag euh, prise en chargé bi nag euh, day démarrer sax bien avant sax ñu ñu yegg si diagnostic bi mm-hmm. dañuy commencer xale bi bu fekkee waxul dañ xam ne xale bi dafa soxla orthophonie euh, ñu ñu boole kaa orthophonie si mu def ay séance ak moom mm-hmm. bu fekkee xale bi dafa am jafe-jafe si euh, si motricité motricité globale motricité fine maanaam li mu téye crayon bi du baax xale bi doxinam dafa capp tànk mm-hmm. parce que am na xale yoo xam ne autistes yi dañu capp ay tànk il marche la pointe des psychomotricien ñu boole ko ak moom. Mm-hmm. Euh, suñu gisee ni que xale bi tamit il faut ñu tester xool est-ce que dafa àndaale retard mental euh, ñu boole ko ak naan psychologue bi moom tamit euh, mu defal ko ay test. Mm-hmm. donc comme ni ma wax rek. pédopsychiatre bi nekk moom kese moom mooy gérer xale bi. Mm-hmm. dafa am équipe para paramédicale boo xam dafay nekk derrière moom autour sax de moom di jël en charge xale bi. prise en charge bi nag. ça se fera en fonction euh, comme ni ma autisme sévère autisme moyen autisme mm-hmm. léger mm-hmm. Euh, xale bi parce que le plus souvent sont les enfants yoo xam ne dañu leen di rejeter à l'école dañu leen accepter école mm-hmm. euh, très rarement la ñuy jël médicament euh, ñi si jël médicament mooy ñi nga xam ne soit Euh, agissé nañ ba mu ba mu ëpp ba kenn mënu leen téye. Mm. parce que il faut ñu dal pour ñu mun leen euh, li ñu leen di jàngal ñu mun ko jàngal ñu mun leen ko jàngal wala ñu nga xam ne dañoo dañoo agressif ñooñu dañuy soxla jox leen euh, médicament ba ñu xaw a dal. Mm-hmm. daanaka li ci topp yëpp nekkul garab. Mm-hmm. donc lu ñu naan remodelage la. remodelage ak spécialiste yooyu ma la limal ñoom ñooy nekk xale yi ça se fait dans le long des années. Mm-hmm. mën a jël ay ay années mais objectif bi mooy que xale bi su waxul woon mu wax xale bi su du woon interagir a nit ñi mu commencé di interagir ak nit ñi xale bi bu fekkee jàngawul école ñu mun ko travailler bu mu mun a jàngi école au début mun na peut-être a nekk école normale mais au fur et mu dem ba intégrer école normale donc objectif prise en charge bi loolu la donc au fur et à dem na dañuy gis xale yi amélioration. Euh, le le le traitement sur quoi parce que yaa ngi wax ne Euh, certainement euh, en benn bu ma comprendre bu baax euh, médicament yi du tout temps leen koy jox joxe mhm. le traitement ça repose sur quoi. waaw le traitement ça repose sur quoi ça repose à ce que xale bi ñu mun ko réinsérer dans la société je peux dire entre guillemets loolu objectif objectif traitement bi. Mhm. maintenant day procédure yoo xam ni mm-hmm. euh, c'est plus spécialisé peut-être mën ma ko expliquer fii. Mm-hmm. moo ñuy permettre ñuy dem ba ça se fait petit à petit ba xale bi mën a réinsérer wu mooy xale bi nga xam ne dafa isolé wu tout temps dootu dootu isolé wu ci dina dina ñëw envers nit ñi xale boo xam ni mënutu woon jàngi école parce que dafa agité bu mu ëpp mënu toog école ñu calmé ko bu mu mën a jàngi école xale boo xam ne dafa agressif ñu dala agressivité bi entre autres entre autres xale bu mënul wax mooy wax parce que objectif bi mooy xale bi mën a dund ci société bi ba duñ ko indexé ba moom tamit yow mu épanouir parce que épanouissement de l' enfant ñun daf ñu tenir à mm-hmm. donc épanouissement boobu nag but bi mooy xale bi épanouir mun a insérer wu si société bi euh, comme tout comme tous les autres enfants. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, épanouissement de l' enfant boobu dañu ciy ñëw sax sànq wax nga ko xale bi pour mu mun a jàng mais est que ñun suñu suñu suñu établissement public yi parce que xam naa ñu ci bëri su leen ko seen doole permettre seen doom yi dañ leen di yóbbu ci établissement privé yi tey. médecin nga yaa ngi côtoyer les enfants ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw en appoint pour faciliter la sa sa liggéey ba xam euh, suñu établissement public yi eh, eh, jël nañu en considération wala prendre nañu en charge euh, xale yi nga xamante ne daanaka dañu am jàngoro bi di autisme ba bu ko defee bu ñu ñëwee au niveau des salles de classe ñu mën a intégré wu bëri na ñoo xamante ne seen doom bu amee jàngoro boobu rek d'office maanaam du ñu jongi peut-être effectivement effectivement li poser question bu am solo bu ma tenir vraiment à cœur parce que euh, malheureusement Euh, école yi ñenn ñi ah euh, ñu gisee xale yu mel noonu rek duñu recevoir donc dañ leen di rejeter à l'école donc parents yi duñu xam duñu duñu xamati nu ñuy def ah, sànq rek maa ngi maa ngi maa ngi xool sur Facebook benn parent buy wax loolu mm-hmm. dafa yóbbu doomam euh, école ñu rejeter ko xamul instant yi nu muy def mm-hmm. te bëgg na xale bi jàng donc comme ni ma la wax sànq au niveau de l'hôpital ici à Fann au niveau de Diamniadio euh, hôpital d'enfants de Diamniadio au niveau de l'hôpital de Thiaroye on permet à ces enfants là ñu ñu ñu ñu a euh, à ce l'hôpital du jour mhm. mooy li ma doon expliquer sànq mhm. hôpital du jour boobu noonu y a les éducateurs spécialisés qui sont là mm a les orthophonistes qui sont autour il y a le psychomotricien qui est là y a médecin ñëpp dañuy nekk autour de l'enfant mhm. pour li nga xam ne mënu ko am école bu xaw ko am fii si hôpital bi. Mhm. mais comme ni ñu wax hôpital la du école. bokkul ba tey du école. Euh, au Sénégal on n'a pas de centre de ressources autisme public amuñu ko. Mhm. amuñu ko donc ñu ñuy euh, lancer appel à l'État parce que jot na Sénégal mu am centre. centre de ressources autisme boo xam ne pour permettre jël euh, en charge xale yooyu noonu mhm. parce que xale yi am na yenn école privée yoo xam ni ñu ngi def inclusion inclusion scolaire dinañ leen jël mais am na ñoo xam ni ñi ma ko sañ a wax su ñeen jëlee lan lañ leen defal biir euh, euh, si biir bi. est-ce que dinañ leen jox li. est-ce que dinañ leen jox li parce que xale yooyu ils ont tout le temps besoin spécialistes yooyu nekk autour de ñoom. Mm-hmm. lan lañ leen di jàngal école est-ce que inclusion la parce que intégration na inclusion du benn. Mm-hmm. est intégré wuñ rek mais est-ce que inclure loolu yëpp sont des questions qu'on se mm-hmm. te loolu moom mbirum état la dañoo war a ay centre pour mun a permettre parce que tout enfant a droit à l'éducation xale yëpp dañoo war a mën a jàng ñoom ñu nekk autiste ñoom retard mental ak lu mu mën ci doon dañoo war a jàng mhm. donc nag il faut permettre à ces enfants la ñu mun a am possibilité boobu mhm. am na ay centre dans le dans am na centre privé boo xam ni euh, sama sama sama docteur Awa Dieye Sow moom moo ko mettre en place Euh, muy euh, éducautisme moom tam mi si bay waaram bu baax a baax a baax a baax a baax si si au niveau de l'autisme mm-hmm. euh, à part ça bon il y a quelques écoles comme je dis yoo xam ne ñi ngi permettre recevoir xale yooyu noonu mm-hmm. mais daal des na lu bëree bëree bëree bëri bëri wax dëgg yàlla des na au Sénégal des na lu bëri lu bëri mu mel ni xale yi nga xamante dañu am jàngoro bii di autisme mm-hmm. daanaka mënuñu leen assurer peut-être une vie éducative assez épanouie à l'image des autres enfants. ah oui ah pour l'instant nii fi mu toll nii daanaka euh, problème boobu moom la ñuy moom la ñuy jànkonteel. Mm-hmm. parce que comme ni ma la wax hôpitaux yooyu noonu ma la limal yi nga xam ne ñoom ñoo jël xale yi. Mm-hmm. Euh, benn hôpitaux yi yu si ëpp à partir de douze ans dootuñu mën a tiirati xale yi après xale bi douze ans fan la jëm fan la jëm. yow da ngay jaaxle yow yow en tant que médecin foo koy foo koy restaurer. Mm-hmm. foo euh, euh, mm-hmm. donc loolu état bi moo waroon teg ay centre yoo xam ne xam nga ne que xale bi su jugee fi fi la jëm fii la jëm fii la jëm mm-hmm. ça c'est le rôle de l'état et vraiment nous devons travailler sur ça malheureusement la santé mentale est un peu un peu laissée en rade. gars yi jëluñu ci euh, temps comme ni mu waree. alors que c'est tellement important balaa ngay gën a xam importance bi soit nga nekk dans xel baax a baax. mu mel ni la politique de l' état bien vrai que dañuy wax euh, la santé pour tous. Euh, mm-hmm. la politique de l' état jëm ci lépp jëm ci euh, prise en charge yenn feebar yi ça laisse à désirer nga ko bu weesoo Fann Diamniadio peut-être ak Thiaroye am ñu ñoo xam foo xamante ne dañ leen di indi pour ñu mën a. intégré wu kon euh, je suppose que à l'intérieur du pays am na ñoo xamante ne moom seen doom bu juddoo am yenn jàngoro yi maanaam mooy scolarité moom dañ koy bañ ci seen ah intérieur du pays y' a même pas de pédopsychiatre. voilà loolu déjà kan may posé diagnostic bi. Mhm. les pédopsychiatres seulement c'est à Dakar. Mhm. donc loolu déjà euh, euh, ça pose un problème mhm. pédopsychiatre dûment formé. actuellement au Sénégal dañ leen di compter sous le bout du doigt. Mm-hmm. y a professeur Fall y a docteur Awa Dieye euh, ñun ñi nekk nan ko formation le reste. voilà daanaka daanaka y a rien mhm. y donc loolu loolu déjà ça pose problème ça pose énormément de problème parce que tout se concentre à Dakar mhm. parce que on n'a pas assez de spécialistes mhm. donc loolu état bi ñoo war ñëw jox xal jox euh, médecins ñu dem jàngi sur loolu parce que soo gisee ni sa dëkk soxla nañu yenn yi facilité nit ñi ñu dem jàngi ñëwaat delluwaat seen dëkk ñëw jàng parce que muy profal muy docteur Awa sont des patriotes jàngi nañu extérieur mais teewul dañoo ñëwaat seen dëkk parce que xam nañu ni que seen dëkk soxla na leen voilà. Euh, tey bu ñu doon defal benn euh, petit euh, état des lieux par rapport ak xale yi nga xamante ne ñoo am fii autisme ci Sénégal le taux wala benn genre pourcentage xam naa ne wax loolu chiffre day compliqué. waaw xam am benn petite notion rek ñu xam ne feebar bi mu ngi fii et c'est mi ngi fi mi ngi fi mi ngi fi bu baax baax kay mi ngi fi comme ni nga wax moom wax chiffre moom. dëgg yàlla day métti parce que amagul étude. Euh, au niveau euh, au niveau du Sénégal bi wax taux exactement mm-hmm. mais quand même yaa na euh, par exemple suñu consultation yi à peu près su ma ne woon suñu jëloon cent cent cent xale yuy consulter peut-être on peut dire dix wala vingt ils sont des autistes ou même mm-hmm. plus. Mm-hmm. Euh, donc chiffre exact moom mënu ko ma ko wax mais mm-hmm. xam naa ni que xale yaa ngi fi. Mm-hmm. te soxla nañu vraiment ku leen jàppale. Mm-hmm. waajur yi jaaxle nañ xamuñu lu ñuy def xamuñu kan lañu war a si kan war a dem entre autres. Euh, d'habitude lu ñuy wax errance ne errance errance diagnostic moo leen di dal dëggantaan. dinañu. errance diagnostic maanaam. maanaam parents yi dinañ bëgg des fois dinañ euh, dinañ teel a jug dinañ teel a jug pour yóbbu seen doom mais duñu xam fa lañ ko yóbbu.

def na rajo def na scanner def na lii mais eh, balaa ñuy que ne am na autisme rek xale bi day dugg ci quatrième année wala cinquième année te pourtant comme ni nga ko waxee mm-hmm. yaay wala pap teel nañu songu structure hospitalière effectivement loolu la parce que gars yi du ñu du ñu xam fan lañ leen war a yóbbu du ñu xam ñoom tam fan lañu war a dem mhm. loolu noonu dafa bëri dafa bëri si xale yi dafa bëri si waajur du ñu xam nañuy def mhm. mais léegi je vois que nag euh, léegi fan yi euh, damay gis ay damay recevoir ay xale yoo xam ne nay deux ans lañuy am nay trois ans mhm. euh, yéen yéen a ñu koy permettre yéen journalistes yi le fait communication bi ça nous permet que yi gën a bàyyi xel si loolu à chaque fois soo ma defee émission damay gis ni que période boobu noonu damay am ay constatation yu bëri soo waxee ñu ne sa émission bi laa seetaan sa émission bi seetaan donc euh, ñun ñoo war a bañ a tàyyi si communication pour wax nit ñi ni que nous sommes là nous sommes là nous pour vous ñëw leen euh, expliquer leen Euh, kañ la ñu war a si ñun. Mm. donc ñu ñoo war a gën a mën a communiquer état bi jàpp nañu si communication boobu. Mm. pour ñu xam ne ni que même bu fekkee new nañ am nañu daay spécialistes yu fi nekk pour jël en charge xale yooyu. Mm. Euh, en charge xale yooyu mais euh, traitement bi c'est traitement bi bu putoowee aussi booy dañu xaw Euh, pas découragé sax mais boo xam boo xalaatee ne boo demee boo jógee peut-être ci pédopsychiatre bi war nga dem defaat le tour avec euh, trois autres médecins spécialisés. Mm-hmm. ba xam loolu aussi du xaw a euh, leen dissuader un tout petit peu. dëgg la dëgg la ça peut être un frein sur le plan financier mhm. mais comme dañoo nekk si hôpital public d'habitude consultation yi moom trop cher mm -hmm. pardon donc ici à Fann euh, consultation médicale yi cinq mille la mhm. cinq mille la pour gis médecin bi yenn spécialistes yi trois mille la mhm. euh, Diamniadio par exemple cinq mille la pour gis médecin yenn spécialistes yi quatre mille donc on essaie vraiment que pour affaire accessible aux aux, aux parents c'est vrai que na soo bëggee dem dans le euh, ça va être beaucoup plus beaucoup plus cher. Mm -hmm. mais dans le public vraiment gars yi ñu ngi jéem pour affaire yi vraiment gën a wàññeeku pour parents yi mu gis seen bopp. Mm-hmm. mais c'est vrai que. Euh, mais moo tax communication boobu am importance pour expliquer parent yi ni ko bokkul ak pédiatrie xale bi ñëw na indi na fièvre. xam nga ni que par exemple bronchiolite la am xam nga ni que par exemple tel maladie la am faj nga ko rendez-vous de suivi gis nga ni que lépp normal arrêté nga bokkul. Mm-hmm. bii da ngay gis ni que te lu ci ëpp su ñëwee bu gis amélioration tuuti rek da ngay gis ni que dañuy sawar. dañuy sawar dañuy am sentiment surtout déglu bi. Mm-hmm. déglu déglu bi ñu jël suñu temps déglu leen ñu wax lu leen metti euh, lu leen nakari ñu waxtaan euh, yow ñu dalal seen xel indiwaat leen dañuy gis ni que dañuy nekk à l'aise dañuy yàqam di sax consultation jot mm-hmm. donc loolu noonu yëpp communication bi moo ko waral mm-hmm. donc on fait tout notre possible pour mettre euh, les parents à l'aise pour ñu mën a ñëwaat euh, consulter wu pour ñu xale bi ñu def ko suivi bi war mm-hmm. mu mel ni waajur yi soxla nañu koo xamante ne dafay a benn capacité d'écoute ak maîtrise vraiment pour am courage ak force certainement pour mën a def communication ak le loolu moom ñu c'est la base de notre a à déglu moom l'écoute moom c'est la base de notre métier euh, soo mënul déglu doo mun nekk si cadre ça moom c'est impossible il faut nga il faut nga a déglu pour a nekk si cadre mm-hmm. donc euh, nit ki dañ koy déglu euh, guider ko mm-hmm. loolu loolu loolu moom c'est la moindre des choses mais aussi pour rassurer parents yi parce que aussi yaa am na tamit ay parents yoo xam ni ñoo xam ni vraiment ñi ngi góorgóorlu ba teg na association en en place mm-hmm. pour jàppale xale yooyu noonu au niveau de Diamniadio il y a des parents de l'hôpital du jour au niveau de Thiaroye euh, y en a Xale y en a y madame Thiam moom moo nekk seen présidente euh, bu jàppale vraiment parents yi moom tam di jàppale xale yi donc gars yi ñu ngi si béy seen waar bu baax a baax a et aussi euh, y a une association nationale lu ñuy wax ASPIGE boo xam ni ça regroupe ñëpp ñi nga xam ne travail ñi ngi nekk si petite enfance yëpp sur le plan psychiatrie ñi ngi si association boobu y a le professeur Moutar Ba qui là y a les madame Fall les madame Bouye ñoom ñëpp euh, ñi ngi nekk autour des enfants pour mun leen euh, jàppale mun jàppale yi mm. donc le plus souvent euh, lan mooy doon problème mooy yegsi si mais soo xasee ba yegsi rek ñu commencé rek teg si yoon. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, xam naa dinañ yéex a yegg si si yéen parce que peut-être euh, xale yi moom tout temps bu ñu amee ay jafe-jafe rek euh, d'office dañ la naan ndax yóbbu nga ko ci ci ci pédiatrie bi mu mel ni liggéey bi c'est tout un c'est c'est toute une équipe waxtaan wi am na solo mais dafa mel ni li ñu cëraloon ci waxtu wi yegg nañ ca. Mm-hmm. waaw waaw ñu ngi kontaan bu baax a baax Fatou si invitation bi encore une fois occasion bi ngeen ñu may ñu waxtaan si Euh, santé mentale autour des enfants dañ siy mhm. kontaan bu baax a baax parce que dafa nekk loo xam ne dañ si war di si di wax di si wax pour guider parents yi ñu xam de un fi ñuy dem mhm. pour ñu xam ne ni que am na ñu fi nekk ñu leen mën a soutenir ñu leen mën a jàppale mhm. xam ne ni que c'est pas du tout une maladie honteuse du sax feebar handicap la dañuy wax c'est pas une maladie l'autisme c'est xam ne ni que am na ñu fi nekk pour pour pour soutenir leen du ma terminer sans remercier euh, euh, équipe bu kër xale yi di remercier tout le monde suma ma limee juum Euh, di euh, di commencer par euh, suñu professeur professeur titulaire professeur Fall di remercier sama cher aîné docteur Awa Dieye nga xam ne moom mooy encadré moom tamit teg ma ci yoon macha allah. Mm-hmm. Mm-hmm. di remercier professeur Mataba mm-hmm. suñu mentor professeur Momar docteur Levis ah, di remercier docteur Soin bu ñëpp daal ñu ngi leen ñi nekk si xale yëpp orthophoniste yi psychomotricien yi éducateur spécialisé sonn ci xale yi sonn ci xale yi vraiment ñun moom dañu naan suñu ay doom lañ sax dañ leen di tënk comme suñu ay doom macha allah parce que tellement dañuy attaché wu ñun sax si xale yi ah, ay doom lañu gars yi dañu téye comme seen ay doom di leen tette xale yi dañuy ñëw des fois du fekk bàyyiwuñu couche mais dañ koy def xeex ba xale yi bàyyi couche ñun fierté boobu lañu am donc di wax parents yi ni que nañu rassuré wu am am na am na vraiment ñu fi nekk pour jàppale leen tete tette leen euh, xam ñu xam ni que ils sont on est là pour eux dañuy ñëw suñu wet incha allahu rabbi fépp fu mën a teg dañu leen fi teg di remercier aussi euh, sama famille ah di leen jaajëfal si jàppale bi parce que xam nañu étude médicale c'est pas facile ah di remercier monsieur Sall sama jëkkër nuyu sama papa sama yaay ainsi que sama tante chérie sama deuxième maman maman Khady di ñuy ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp mm-hmm. kontaan naa si invitation et merci encore une fois Euh, le plaisir est vraiment partagé docteur Salla ay Dieng ma fàttali ne moo nekkoon suñu invité ci suñu émission bii di SOS santé waxtaan nañu ci lu yaatu yaatu jëm ci spécialiste bi spécialité bii di pédopsychiatre waaye tamit xuus nañu ci biir waxtaan bi jëm ci jàngoro bii di autisme euh, xam naa ne nag ñiñ euh, ko sañ wax waajur yi bu seen doom yi di présenté yenn signes rek bu leen yéex dem leen kër docteur ba mun leen defal le diagnostic qui s'y est et fàttali ne docteur euh, Sala Aïcha Dieng moo nekkoon suñu émission invité si suñu émission bile di SOS santé euh, docteur Sala Aïcha Dieng ma fàttali ne médecin internet des hôpitaux la waaye tamit nekk quatre fii si hôpital euh, bu Fann rawatina ci fu ñuy waxee fu ñuy wax kër xale yi SOS santé nag Fatou Baba fal moo nekkoon ci micro bi Bachir Cissé nekk ci xarale bi jërë ngeen jëf ci déglu bi beneen vendredi beneen émission ak beneen invité